su fekkee ne li ma sama rëcc-rëcc bi bu màgg bi ma def moo tax ba mënuma laa gis mu nekk kiiraay loo xam ne day tax duma la mën a gis kon de faqat azza jafe na ad dawaau saafara daa qalbi jàngaroy sama xol bi maanaam su fekkee ne dama wàcc yoon moo tax yow mënoo maa feeñ ba ma gis la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ma xam ne daal sama xol bi feebaram bi du wér waaw ndax xol bi li ci nekk mooy lan ma gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw wax na ko ba son gis yonent bi nee na ku ko gis ak taxe nga moom nag bul fàtte ne taalibe abul abbas al marsi la woon abul abbas al marsi moo doon wax ne bu ko yonent bi yiir woon benn gendeeku moom day jàppe boppam leneen lu dul jullit dana gëm ne moom du julit fekkoon ne euh, yonent bi feeñ feeñ ñàkk da ko feeñu benn gaynde kon loolu li muy tegtale mooy rek ne ku gis yonent bi la sallallahu alayhi wa moto waaw mu ne ko su fekkee sama bàkkaar yee ma të ñoo ma ñoo ma tënk ba mënuma laa gis daal mooy ne daal suma feebar bu du wér mukk moom ndeysaan bëgg yonent sallallahu alayhi wa من كيف يصدى بالذنب قلب محب وله ذكرك الجميل جلاء كيف يصدى منك لي خوماجي ويتح من يصدى ويصدى لورده كيف يصدى نك لي خوماجي قلب محب قلب أجي صب بالذنب تبكر ولو تجيال نكو ذكرك تدوس الجميل بدأ يترد بدأ ي بدأ يرفت جلاؤن أفهم مانا نتكل الصب نخ قلم دنا خوماك سوفك يا نمم مون لي فاتلك وقتونك مانا دك فاتلك ينتهي على محمد صلى الله عليه وسلم مون نخ برم قلبه بقلب دنا خوماك ديدت قلب دنا خوماك مك ko xamne fo tollu yaangi yaa wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko xol di di diko ko ñaan diko tuddu di tuddu ay mbiram di jàngale ay jaar-jaaram nee sa xol du mun a sa xol bi du du xoomaak mukk mën ta xoomaak mu illati wa anta tabibi laysa yaxtafi alayka fi lqalbi daaw ليس يخفى عليك في القلب يخفى يخفى عليك في القلب داو دفنا لو ليدون بس كي يختفي موم بيت بي داي دام بون يختفي يخفي لا ليس يخفى لا متو تيري بول نيك جامو تيري بوكو توبي رك دي ديف نيونت هذه عل... هذه علتي وانت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داو ليس يخفى عليك في القلب داو ويدو ليس يختفي من هذه لي علتي ما يسمى فيبر وانت يونك طبيبي يا يسمى آه، دكتور لي ما يسمى فيبر تخمنا انا يا دكتور بي انا مجي جاكا لي يونت ديكو ديكو نيان نكو يا يا دكتور بي من دما فيبر من ليس يخفى درد النبو عليك تيو داء جانغورو في القلب وجنك في قلبي تخمنا أنا فكر بمانا فجنا ببين جانغورو بنك استمع قل بلا نبو بما قول رقم لمدان كن يو صلى الله عليه وسلم ننا يو يا دكتور بي يا فج هذه علتي وأنت طبيبي ليس يخفى كن دينكو يا دفرات ليس يختفي ليس يخفى ليس يخفى عليك في القلب داء ومن الفوز أن أبثك شكوى هي شكوى إليك وقي اقتضاء nee na wa min al fawzi bokk na sax ci texe an abussaka ba ma yullil la an abussu laka ba ma yulli ñeel la shakwan ak tawat maanaam su ma mënee dema dema dem ba di jël sama tawat di la ko teg sa kanam di la ko a ah, di la ko di la ko yullil nee na loolu rek Euh, texale ci man maa dem ba mun a jàkkaarloo yonent bi di ko wax ne ko lii ma dal lii ma dal nee na loolu doy na sëkk loolu fawz la loolu texe la tax mu ne wa minal fawzi bokk na ci texe an abusaka ba ma yulli la shakwan yooyu tax mu ne an abusaka shakwan an abusa laka la waroon wax an abusa laka ba ma yullil la shakwan ab tawat la ilayka ju jëm ci yow waxeete moom iqtidaawun ak sàkku la maanaam ak tawat la de waaye tawat gi itam dama ci sàkkuwaale samay bëgg-bëgg dama ci waxaale li nga xam ne moom laa bëgg kon dama yonent bi lay wax sallallahu alayhi wa sallam waaw dammanatha مضائع مستطاب فيك منها المديح والإصغاء ولضمنتها مدائح مستطاب فيك منها المديح والإصغاء ضمنتها لم يفنكو مي قصدوي قصدوي مي هذه هذه بمي وحنا علتي وأنت طبيبي يبقى قصدوي لجبلو لأن قصدوي مي وحنا ضمنتها làmbaleef na ko madaa iwun ay tagg dama la cee tagg waaye itam wax naa ci yeneen de mustataabun luñ sàkkoo teelu la nag fii ka ci yow min haa ci moom almadihu ak tagg wal israaw ak ak e, déglu béti bii nag du yomb arab ci xale yi jàng mustataabun ji e, maful kii la dañ koy waxat ci euh, ismu mafool la ismu mafool dafay am naay faay maanaam mustataabun ji mu ngay jëf ca madiixu jële ji ñëw ci kanam mustataabun luñ sàkkoo teelu la al madiixu ak tagg wal israawu ak ak déglu maanaam tagg la woo xam ne buñ ko yëkkatee mu neex boo ko dégloo mu neex hamziya mooy loolu waaw boo ko yëkkatee mu neex yow mi koy wax day neex ki koy déglu itam day neex ci moom kon mustataabun boobu doo ko doo ko doo ko doo ko naatal ci day nekk li ñuy wax euh, naat sababi waaw haadihi ma madaaxewun dafay mel ni naatam la fekk naat naat du naatam dëgg-dëgg maa du naat xaqiqi dafa dafa ñëw rek pour leer la ci kanam moo tax toujours day am lu ko lu ñëw ci kanamam da nga naan mustataabun madi al madixu wal isgaau fii luñ sellu la ak tagg ak ak jégal ak ak ak déglu maanaam boo koy déglu day nekk madxun tayibun boo koy déglu itam mu nekk isgaa tayib waaw istimaa tayib liman yastami wa yusri مدح طيب للماضح كوكو موي مستطاب بمي كون دا قصد لا وخا من لم تي بوغا واخ ليرنا مو يوم كوي ديغ دا لا نيه سي يو واي كين كوي ديغل تام دا نيه سي مو يوم كوي واخ تام دا نيه سي يو قلما حاولت مديحك مديحك قدما حاولت له دكو يخبطي قلما حاولت مديحك الا ساعدتها ميم ودال وحاول xallama xaawaltu néew na bu ma jéemee ma di xaga ak tàgg la ak tagg sa illaa saadata ndare bu dimbale na ko miimun miim wa ak daal wala xaawun ak xaa nee fu ma jógee ne dama laa bëgg a tàgg rek miim miim daal di jógee fële ñëw taxaw deel ñëw xaa ñëw miim deel xaa miim deel xaa mooy matxu mooy ak tàgg maanaam moom bu bëggee bëgg a tàgg yonent rek boo xalaatee rek tàgg bi day daal di daw rek ñëw taxaw ne ko maa ngi nii wax tudd ma dakoy dimbale tag yu mokoy dimbale loolu lu jafe la ci kuy mana way wala ngay bind way xam nga lu jafe la yombul mune haqqa fika haqqa li fika an usajil qawman salamat منهم لدلوي دلاو dilaaw xaqa yey na lii ñeel ma fiika ci mu musaaja la xëccoo la ci adab waaw am na ñu koy tuddee euh, ci wolof mbay laax waxin la rek maanaam xëccoo la rek yaa xam xëccoo bi ni ñu mooy nit di def façon xëccoo bu nekk rek maanaam ci adab bu ma sànnee benn béyti nga sànni beneen loolu mooy mu musaaja la cosaan bi mu ngi tuggee ci picc yi picc yi nekk ci kaw garab yi bu bii sabee bale sab ñuy bii sabaat bii sabaat ñuy sànni ante sab gi noonu mel ni dañ ci dañ ciy concours mu saajale mooy genre concours rek boo sànnee ma sànni ñu xool bu gën a rafet loolu mooy mu saajale foofu la cosaan bi jógee ca picc ya léegi nag suñ ko indee ci ëdëb ñu ngi ci jublu ma sànni benn bayti yow tam nga sànni beneen ñu xool bu gën a rafet ma sànniyaat nga sànniyaat loolu mooy mu saajale ëdëb ya nee na nag moom mën na koo def mu saajale mooy may xëccoo xaw man aw nit nit ñoo xam ne sallamat jël na addilaa u baag ya minhum tukkee ci ñoom li dal wi ñaal sama baag bi li dal wi ñaal sama baag bi wala sallamat jé jébbalu na lu neexe nga firee noonu sallamat jébbalu na addilaa u baag ya minhum tukkee ci ñoom li wi ñaal sama baag bi bi maanaa dafa bëgg wax ne moom bu bëggee xëccoo gaa yi tam raw na leen parce que ci sama baag bi ñoom ci la ñuy man maay root génnee ba ci biti ñoom tam ñu ñëw tànqaat ci sama la ma rootoon ok maa leen raw moo tax mu ne xaqa lii fii ka an usaajila qawman sallamat minhum li dalwi dilaaw sallamat nangu na addilaaw seen baag ya minum tukkee ci ñoom li dalwi ñiyaa sama baag bi sama baag bi ñoom ci la ñuy tànqee ba léegi waykat yëpp boo ko xoolee wax ji yàlla da ko dëggal ñi ñëwaat gannaawam ñëpp jéem nañoo way wayu mel nii ñi def hamziya bari nañ di ko tagge yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yusuf nabahaani ci ñuy mujj ñëw ci la bokk def na xasida hamziya bu rafet rafet rafet tuddee ko taybatul garra da ngay wax ne sax moo dàq bi waaw ndax moo dafa mel ni moo ko gën a xam yàlla boo koy liir moo gën a maarifaaye foof xasida boobu xasida boobu taybatul garra junney bayti la ko def مم يوسف النبهاني لأن اللي بعنا لو نبقي النبي صلى الله عليه وسلم لأن كان الإمام خليفة الحاج محمد دوم الإمام على عبد الله ينس تاوم ممتهم دفنا بين تديك آه، مرأة الصفا آه، دفنا دفنا بين همزية تديك مرأة الصفا همزية بوبو وخنا بمكو mooy at mi maam alaaji génn àddina at moomu moom la gàmmoo moom moom xalifa moo gàmmoo at moomu bañ demee ba ca gàmmu gay jeex maam alaaji abdullahi ñes génn ne bu ma génnoon àddina sax li ma bëggoon yàlla may na ma ndax xaside woo ngeen dégg alaaji muhammad euh, gàmmoo mooy ki def def loolu la maam alaaji wax سنتي كو يالا ادما ما تي لا ген ادنا مي عام شمس قصدو باي دفنا شي تقريز ني بر دفنا شي تقريز قصدو نيه لا مو مو بوم دف ميرات الصفا ام ني نينن ني دف لنين ني جيل هم ميم يبا ميم يبا يتام كو نيك جيل نكو دف مي مي مي بوردا بي بوردا بيم ديفون موم دال نام تاغي يوني نانت رك غاي دانيو نيو داغي ديك سخ على ولا على نهج البوردا dañ ko mujj def sax mu nekk benn euh, kii ci adab itlaala waaw maanaam ñu bëri ñëw nañ di jéem a def xasida woo xam ne dañ koy def mimiya di ko tàggee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko si mel ni Sidi Hadj Malick mimiya am bu rafet boobu nga xam ne mooy naka la tuddati waay euh, mimiya rek lañ koy wax senegal mu ngi tudd euh, xilaasu zahab خلاص ذهب كوكو مونكو داف سي اهم مونكو داف سي سي بوردا على نهج بوردا آه. مونتم على نهج بوردا لا جيل واي نك مو فا غنا جوتال فوف بوردا باسكو بوردا يم تود سي سيرا داف كو غاتال موم نك فوفو داف فا جانغال سيرا موم آه، كومبلي سيرا لا بو خامني بوكو ليري داغا غيس ني باول دارا دارا سي سيرا لو تي نيت دي ورا خام رك بو دوجي تير بو دونكو خام موي آه، خلاص ذهب loolu yëpp li muy wan moo tax daf ne waa li waa ji wax dëgg la sallamat minhum li dalwi dilaa u gaa yi ci man la ñuy tànqee soog a soog a génne waaw ba mu koy wax xam naa ci fu sori ci yàlla la taxaw wax ko moo tax it li am gannaaw gis na ko góor yàlla yi ñoom am na seen wax yoo xam ne bu ñu koy wax ci péeb yàlla ba lañ koy waxee moo tax ñëpp koy dégg ñëpp añ koy nirule Baarudi shaar bu mag boobu ñuy wax Baarudi def na benn mimiye moom it mimiye boo xam ne kenn gisul bu ko gën a rafet man nga ne sax moo dàq bu séeri bi moo ko gën a jotal waaye dootu ko dootu li dël bi di laa rek waaw lu fi waaye additi daal ci man nga ko tànkee woon rek waaye boo nag boo demee ndox ma nga tànk nga def ca ay colorant def ca say yu neex ba mu saf sàpp ba nekk am njar nit di ko naan sax waaye bu ñëwee rek ci man nga ko jëlee woon ci man nga ko jële woon wali qalbi fii kal xuluwu wa anna li lisaani fi madxi kal xulawa من ولي قلبي اجي نك لا نيال سما قلبي فيك تي يو الغلو اك جيغ دايو دما لا بغ بغ بغ بغ يو يونت بي صلى الله عليه وسلم بم جيغ دايو من دما جيغ دايو سي بغ يونت بي صلى الله عليه وسلم موي لي وهابي باج موم لا ني خاسي نيت ني بو غيغي ني باي دا نيهولين ني باي دا فا بغ يونت بي با داف غلو داف داف غلو في محبه الرسول صلى الله عليه وسلم ين ديغ نتلي بوبو امام حسن دي نتلي bu ko waxee kam taseeloon mu koy wax ne ko sa maam défendre na l'islam def na lu ne liggéeyal na yonent bi waaye daal lenn rek moo yàq liggéeyam bi mooy dafa ëppal dafa ëppal ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne bàyyi ndax loolu rek la ko mënoon a béglee bu waxtu boobu mu ngi waaj bëgg googu lay wax mu ne moom daf cee dem ba ëppal xam na ne moom ci xuluwu la nekk waaw dafa ëppal ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag mu ne wa annaa lisaani wa annaa li lisaani fii madxika alxulawaa wa annaa li lisaani fan lay tukkee ñeel sama làmmiñ wi alxulawaaw ak jéggi dayoo fii madxika ci tàgg la xam naa ne xol bi moom ëppal na ëppal naa sama xol ëppal naa ci mbëggeel waaye nag damaa bëggoon sama làmmiñ wi itam topp sama xol bi man loolu laa bëggoon nee na moom loolu la bëggoon dafa bëggoon làmmiñam wi topp xol bi ni muy bëggee yonent bi mu ko mu ëppal ci bëgg yonent bi bu koy tagg itam tagg woo ëpp waaw loolu la bëggoon ne tagg yonent bi tagg woo xam ne yu dañ naan yu ëpp na moo tax def na sax yaa akramal xalqi maa lii man aluuzu bi siwaaka inda xululi xaadisi al amimi gaa yi yëpp wahaabi yëpp béyti ba mooy problème ñu ne waa dafa def xulu parce que bu yomal xiyaam kenn fa kuy baal jaam ku dul yàlla moom nan lay demee di jéem a wax naan yonent bi la soxla yonent bi moo koy ci lay wéeru kon ak a ñoo dof ak koo xam ne moom la moom ñëpp a daw utali ku nekk ci yonent yi yonent yëpp daw ba yow ci moom mu ne leen ana laha man maay borom shafaa boobu ngeen di wax ramm bi man maa ko man tey ñëw leen ma ramm nga ne yow bu ko kooku bu ko kenn yaakaar boo ko yaakaar jëm kan mo fay ramm keneen te moom ramm ñu ne gëm nañ ne dañ ñoo war wala ñoom dañoo jàpp ne ñoom ñoom jot soxlawuñu ramm bu ngeen soxlawu ramm ba te amul problème yéen dem leen rek yéen daagu dugg parce que yéen yéenay doomu yàlla yéen yéen taxoon yàlla bind aljanna ñun nag tiit nañ ci suñ bopp moo tax ñu yaakaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yonent yi di yaakaaree daw di ñëw ci ci kanam mu leen dimbale ñun tam noonu lañ ko soxla loolu rek la waaji di juñ foofu te bayti boobu boo demoon ci ar risala ila ila al gasim ñoom noonu lañ koy tuddee risala ila al gasim gasim benn dëkk la bu nekk ci arab saoudite seen kilifa gu mag muy Muhammad ibnu Abdul Wahab maa ngi conseillé xale yëpp ñu dugg ci internet bi xool risala ila al gasim risala ila al gasim lépp liñ wax ne Muhammad ibnu Abdul Wahab moo leen ko waxaloon te tontu boobu doon tontu benn waaye bu ko yónnee woon leetar jógee Gasin wax na ko ci biir tontu ne ko ne ko loolu waxuma ko ñoom ñoo wax ne man maa wax ne kufru la wala shirk la mu ne ma ko wax xanaa lool boobu yébe yéen li ngeen wax seen sëriñ bi ne ma waxuma ma ko wax ci risaala ilal Gasin yaa dàq ne wëlu yàlla yi dañuy am ay mashahid مشاهد الاولياء من مسمكو واخ يا واخنا نن تسويه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبر يونت بي ننكو ديندي باسكو تواخ قبر بوك باخوت من مسمكو واخ موي لي غاي واخ ييب بو دمي تي لتر بابا ابن عبد الوهاب نينا موم واخوكو نينا موم واخوكو لي كان لا ني گم وا آه. غاي جوغي فوفو نيو اك سين يو تيك نيو بوغ نيو راي xabri yi buñ ko tabax nangam nangam def leen lii dëgg fe ku ko def nangam ak ku wax ñu ne la shirk nga ku wax ñu ne la bokkaalekat nga ku wax loo wax la mu ne yooyu yëpp moom mos ca dugg waxu ko kenn moom moo ko waxal boppam kenn waxalu moo ko bindal boppam bu dee da ko waxoon ngir leneen affaire am la ñun du defuñ ko marja Muhammad ibn Abdul Wahab tuuti na pour nekk suñ marja parce que jàngut Muhammad ibn Abdul Wahab du du du borom xam madrasa ba nga xam ne ci la doon aju muy xanaabila yi ñoom ñëpp dal nañ ci kawam génnee ko sax ci ci seen madrasa parce que gis nañ ne xamu dara duutoon aalim moom politicien la ànd benn waay ñuy ut nguur ba am ko seddoo ba neexee nga tuddee ko réformateur tuddee ko lu la neex waaye bëgg tuddee mukk aalim laysa aalima kooku mooy Muhammad bin Abdul kon euh, jéggi daye googu ñuy wax nena mom elante won mo wax yonent bi sa wax jo xamne dafa jegi dayo ndax bu xamne xolam bi jegi na dayo ci beug yonent bi sallallahu alayhi wasallam elante won nak bu koy wax ñëpp mën koo dégg waaw wax rek ñu xam man damaa jéggi dayo ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam xal wax ju rëy la wali xal bi fii kal wa anna li lisaani fii matxi kal xulawaaw waaw lisaan fa asib xaatiran yalazu lahu musxuka ilman madxuka ilman bi annahu laa laaw ne na fa asib yoolal yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yool ma naa bii itam daa leen jaaxal de ñu yool moom ci yàlla rek lañ ko séntu ñoom mu ne ko fa asib na nga yool xaatiran xaatir sama xaatir boo xam ne yàlla zu dana neex lawoo ñeel ko madxuka sag tagg bi ilman ci xam bi annahu ci naka moom alla laaw mooy aji melax ja maanaam aji melax la aji melxati la dafa bëgg a wax ne yonent bi salaa salaam na yool xaatiram bi maanaam xaatir bi xam nga def nañ la li muy xaatir moom ci xol bi ba fa mu fa teg yonent bi sori na mooy nag yonent bi na yool xaatir boobu xaatir boo xam ne tagg yonent bi daf koo neex te xam na ne yonent bi salaa salaam moy le fete kaw di melax ci lu nek rek bi manam moy moraw ñep la bëgg wax rek waaw lépp luy melxati lo xamne luy melxati le rek nee na kooku mooy yonent bi wala koku moy tag bi tag yonent bi egg na foofu mu ne xaaka min sanaati alqaridi burudan laka lam tuxki washiyaha sanaaw mu ne xaaka ràbb na ما خاطر بوبو خاتم مو حاكم مو رب من صناعة القليل تدفر وي برودا أي مبو بين بياده لكن يا الله بمعنى سما خلمي ربنا أي مبو مبو يا من وي مبو يرفت توي لا سما خلمي رب من يا الله ينتي صلى الله عليه وسلم يوخمنا لم تحكي رب sanaawun dëkk bi ñuy wax sanaa wasiha ak ak ak njamam maanaam sama xaatit bi ràbb na ay woy yoo xam ne dañoo taaroo taaroo taaru ba nga xam ne dafa mel ni ay mbubb mbubb yoo xam ne dëkk bi daq defar mbubb yu rafet mbubb yu rey rey ñu ko dàq te mooy sanaa nee na ñoo munuñ ko munuñoo ràbb mbubb yu mel noonu wala lam tax ki eh, royut maanaam waxuma la man koo defar waaye royuñ ko sax ñoom maa defar pakuti sax ci lu niroog li ma def ci yonent bi ñoom mënuñ li ma def ci leen tem rafet ba mel ni ay yére nee na nee nee na yére lu rafetee noonu waa Sanaa mënuñ koo sax roy xaka day firi loolu day firi euh, muxaaka dafa am muxaaka mooy mooy mooy roy kon lam tax ki bu la nga firee ko roy royit bu la neexee nga firee ko itam lam tax Euh, rabut ñaar yëpp daf koy daf koy firi bii di xikaaya mooy ak rabb bale di la delloo ca muxaaka te mooy ak nirole waa di roy kon waxuma defar ko waaye nee na mënuñ ko roy sax lima ma defar tem taaru waaye man dañoo nekk ñoo xam ne ci wàllu defar ay mbubb yu rafet ñoo ko dàqale ba léegi nii yal leen yàlla dimbale wahabi yi yàq nañ seen dëkk ya waaw nañ yàq nañ yemen bëgg àddina rek ak politique rek tax nañu taal yemen yàq ko yemen googu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na gëm yàlla fa la dëkk waaw gëm yàlla yemen la dëkk yemen googu yàq nañ ko bis ni ki tey xeex nañ ko ay at a ngi nañ ne nag day dem mu yomb waaw dugal ci seen buur yi ñu dem xeex ndeysaan ne buur yi sax bëgg nañ cee génn at yooya maa ngi gis fii ci suñ télé Sénégal ñetti borom sikkim toog ñu ne dañuy défendre xeex bi li lay xamal ne nitu aalimul balaat baaxul te mooy nit koo xam ne yow nguur rek ngay topp borom xam boo xam ne nguur rek booba dañoon propagande pour Sénégal jël ay soldats dem yóbbu ko ñu dem xeexi foofu ci Yemen booba ñoom loolu lañ doon propagande xex say mbokk julli yo xamne yaangi tàmbali xex bi ci wéru koor wéru koor lañ leen som julit ñuy oor nga ay xex nga dem di xex ak ñoom julit di xex ak julit waxo ne bind ay euh mbind yónnee ko sa buur ay rapport lañ warona bind bobu bind ko yónnee ko buur bi ne ko li baxul bu ci dugg bàyyi leen guerre bi wala suñu mënut wax ak seen buur ñu wax ak suñu buur yi dëkk bok na leen loolu bu amé bu leen ci dugg heureusement sax ñun dugguñ ci waaye da xool loolu rek jóg leen ngeen dem xeexi seen mbokki jullit nga ne jóg leen dinañ dem lii ku ci dem nangam nangam parce que ñi ñuy xeex ñooñu ñu sax jullit dégg nga seen wax yi de waaw te ci gën moo doon wax loolu waaye ne ñooñu moom du jullit sax moom yaman moom ña fa nekk noonu di di xeex te mooy xawsi yi ñooñu moom du nekkuñ sax ci lislaam maanaam daal bëgg a jël xeex bi waaye ne dañuy jihaar ci jihaar la nekk waaw loolu c'est grave tey nag léegi dem nañ ba guerre ba buur bi bëkki démb nee na dana démb sax la ko wax nee na ñu ngi seet nu ñu def ba guerre bu jeex ñu régler problème mu yeman mu jeex mooy bëggatuñ xeex bi amul njëriñ ñoo dañoo foogoon ñoo leen man dool ëpp ëpp leen doole dañuy dem rek balaa ñaari fan yëf yi jeex demeewut noonu waaw loolu nag yow nga toog fii senegal parce que sa ceeb mu ngi tooyee Arabie Saoudite doo wax doo leen wax dëgg doo leen wax lu leen di jëriñ xaa ki sax même bu lay jëriñ nga wax ko li deug bok war ko ne ko ah, fi ngeen bëgg dem kat baxut ay julit ngeen xex te bu boba amul njëriñ xex bi amul njëriñ waye di di di gën di xamba rek bay xambaale sax nguuru dëkk bi nga nek wone dafa wara dem fofu mu xeexi waaw ab looy nak ak xaw ma ku sant dem ak xaw lan ñoto ñoto won deflo ku dugg ci RTS ci sen ki da nga ko fa gis kon yaman yàq nañ ko mooy yaman gi muy tudd fii sanaa mooy capital ba nee na loolu lañ gënoon a man mooy defar yu rafet waaye du loolu rek de dañoo mun lu bare bare bare bare bari xam-xam mën a xeex itam nag ku dugg ak ñoom ci xeex da nga ko rëcc ajaza durra nazmuhu fastawat fihi lyadaani sannaa wal xarqaaw nee na sama xaatir boobu kat ajaza lottaloona a durra wul su durru nazmuhu e, nosem wa maanaam li sama xaatir bi génnee ci aw taaru naa taaru ba nga xam ne moo gën a rafet wurus su dur waaw dur ak yaaquut dur mooy boobu di génn ci benn jën genre jën woo xam ne dafa mel ni yéet am lu koy këpp nii dafa am lu muy dugg ci biir kii bi lay dugg am xoor xoor bu rëy la boo gisee xoor la boo ko ubbee ci biir yaramam bi ci ngay fekk ay per perle yooyu la ñuy wax dur dafay weex tàll mel ni melax rafet jigéen ñi di ko takk lu cher la loolu mooy dur Euh, nee na li lool li muy taaru taarukat nee na xasida yi nga xam ne mooy génn ci xaatiram bi moom góor gii di Muhammad al Busayri nee moo gën a rafet daf koy daf koy lottuloo sax nee na fas tawat yemoo na fii ci moom alyadaani ñaari loxo ñaari loxo yi ñoo ci yem maanaam li ma def ñaari loxo yi benn ko ci mënut ban sannaaw bi nga xam ne liggéeyaakoon la loxo boo xam ne day day liggéey di créer di dem rek loo mën a mën a créer mënoo def li ma def wal xarxaawu ak boo xam ne dafa léej loxo boo xam ne dafa léeg maanaam loxo boo xam ne du boo ko doon tabax la sax day rox day lox wala soo defee nangam balaa kii nga xotti ko yàqali waaw kooku mooy xarxaa loxo bu léej boo xam ne mënut a mënut a mënut def dara mu aw soo ne ko bindal ma ca kaw lay dalee wàccee mu jëm ci bind mu jaar nii sax du ko mën al yadul xarxaa mënta bind sax mu jëf nii dafay dalee nii ba mooy tut fi la koy wàccee ci suuf bind mu correct sax du ko man soo ne ko jàppal ma fii ma ma teg mool bi boo moytu dana fa nekk ba bu paree boo ko xoolee mool bi ni lay def dafay weng ne na ñaar boobu nag ak loxo bi nga xam ne moom dafa mën a liggéey ñoom yëpp ci yam maanaam mën na la bind ak mën na la taalif ak loo mun ak nga ñàkk koo man wala nga koy jéem sa taalif yi di yàqu yëpp ci yam mënoo def li ma def

yow mi nga xam ne af saxa imri'in yaa gën a fasaa ci as cam nataqa koo xam ne tudd na ad daadda xarfu daad képp kuy wax daad ne na yaa ko gën a fasaa te daad mooy xarf woo xam ne ajam du ko man ajam dëgg-dëgg du man du man daad daad dafa dafa jafee prononcé moo gën a jafee prononcé ci xarf yi moo tax xarfu lugal arabiyya ñu koy wax lugatu vodd di leen xam ne am na benn waaye bu saay-saay boo xam ne day gëstukat la nag ku mën a gëstu la day wax ne mu ne mu ne loolu du dëgg mu ne loxol arabiya duut ne moom rek moo am dood mu ne loolu taxawul avéré am na làkk yoo xam ne am nañ waaye liñ miinoon daal xam ko dañuy wax ne xarf euh, làkku arab mooy xarfu dood ñoom moom xarfu dood moo tax buñ ne ديوكو دق ضادله مي كمان اللغه العربيه لول لانيو جانغالون يو مي خا خني كوي تود داب كيب كوي حرف ضاد ياكو كو داك ياكو غنا فقامت بجك حرف الظا وحرف ظا تغاردنا في رسخ منها تي حرف الضاد نين ليغي ضاد za dafa mujj di ko di ko fiire xam nga ñoom ñaar seen maxraj sorewul zaad ak za da ngay gis sax naari naari léegi wax ba njëkk de naari léegi moo xam nga dégg dootuñu ay arab ñoom ñoom léegi ñaari suñ koy bind sax lool la ñuy bind buñ ne nazim ñu ne nazim nazim nazim moom la ñuy bind maanaam daad la ñuy bind ci buñ ne haada daabitun daabit daabit mooy commandant bu nekk ci armée bi wala police wala yu kenn xamul daabit léegi dañ naan la zaabit waaw zaabit comme mis masri yi la ñuy wax zaabit maanaam mënuñu woon tudd bale ñu jël bi rek wut wutale ko ñaar dañ leen wutale moo tax mu ne léegi zaa dafa mujj moom di euh, wujjee di fiire euh, daad ndax yonent bi daad lay lay wax te moo ci gën a fasaa moo tax léegi yeneen yeneen xaraf yi di ko di ko di ko xëccoog moom mu ne abi zikril ayaati moo ndax ci tudd ay kaawteef uuf yi ka dana tax ma matal la mat xan aw tagg maa nettali say kaawteef nii rek yi ma fi nettali ci téere bi ndax tax na ma mat la matal la aw tagg wala déet maa taxul nga mat matal ko de lim fi wax yëpp dafa bëgg wax ne li ma fi wax yëpp kat taxul ma matal tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tagg bu gàtt laa ko tagg ayna min nii fan lay tukke ci man wa ayna min ak fan lay tukkee ci kaawteef yooyu alwafaaw ak matal man fan laa mën a jaar ba tagg yonent bi tagg bu mat wala yi ma koy wax kaawteef yi may wax ci moom yooyu itam fan lay jaar ba mën a matal xaq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mënta mëntaam lu tax koo xam ne borom bi moo ko tagg ku yàlla màgg mi tagg kooku weneen tagg mënta rëy ci sakana kanam ko jox mu ne am umaariya wala ndax damay werante biin na ak kawteef yooyu ma indi ci sama téere bii wala sama woy wii dama ci waar werante xawma nabiyin nitu aw yonant mu ne ndax yi ma ci indi dama cee jublu bokk di dàggeante di xëccoo ak ñooñu nga xam ne dañoo nekk ci yeneen diine yi maanaam chrétiens yi ak euh, juif yi ndax ñoom ci ñoom laa ñoom lay dàgganteeg ñoom wala de wala wala loolaa ci jublu xañ na mu ne saa a ñaaw na ma zannahu la jortu ko biyee ci man al arbiyaaw euh, dof yi rabi mooy koo xam ne xel mi neexut ñooñu nga xam ne seen xel yi neexut liñ jortu ci man yaakaar ne man dama fay ñëw def sama xasida yi xam nga boo seetloo ci biir biir am don na dal ci kaw nasaraan yi dal na ci itam ci yahud yi mu ne mu ku yaakaar ne loolu rek a ma taxoon di bind mu ne yow yégoo li xew sa njort ñaaw na mu ne wala kat ñaal na la yonent bi sallallahu alayhi wa al ummatu xeet wa maanaam yow yaa moom xeet wu mag wi muy nation bu mag bi mooy nation islamique muy ummal islamia lati bi nga xam ne rabatata ñee na ko bi ko ci yow al ambiya u yonent yi lamma uutitaha waxtu woo joxeef la ko maanaam bañ la ko joxee yeneen yonent yi ci boppam ñoom dañ laa mujj ñee waaw moo tax boo demee ci téere yu njëkk yi dañ daan wax ne ummatu muhammad ñoom ñooy xamaaduun allah ñooy santkati yàlla yi ndax yàlla daf leen may boppam may leen loo xam ne mosu ko may kenn waaw te ñoom booba xamoon nañu dana ñëw moo tax xeet wi ko yàlla wàccee xeet woo ñu ne mooy xeet bi gën waaw mooy xeet bi nga xam ne moo gën moom lay wax ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas nekk ngeen di gën di xeet boo ummal islaamiya bi la jublu gis nga umma la ko def nation la ko def moo tax julli ñi ñëpp benn carte d'identité lañ ñu war na te kon ne dégg nañ dëgg dëgg dëgg ñëpp benn carte d'identité la ñu am seen dëkk yëpp ñu dindi frontière def ko muy benn ñu ko defoon rek àdduna yëpp nekk ci seen ndox waaye tubaab bi nax nañ leen tiital leen xupp leen ba kenn ñemewu ko kii naan Sénégal laa dëkk man Sénégal yi ana Sénégal man sama deret nangam nangam ñun Sénégal lañ kenaan la noom ana Saoudi Saoudi Saoudi man Saoudi la kii naan la Kuwaiti kii naan la Bagh Iraqi kii naan la turki te yooyu ñëpp ay muslim ngeen ay jullit kese ngeen moon ngeen a fexe nag ba seen réew bu ñu defoon ay euh, union ci seen biir dindi visa nañ dindi visa rek Sénégal léegi amatul visa ak Turquie amatul visa ak Arabie Saoudite amatul visa ak fen li nekk fii ci réew mi itam ñoom buñ ko soxlaa dañuy ñëw jënd ko fii dem yóbbu te kenn benn duñ fay duwaan ñun tam buñ dugalee foofu duñ fay suñ ko defoon léegi yor àdduna bi budon am loolu budon am rek aduna bi yep nek suñu kanam dëkk julit ñi yep ñu fexe ba dindi frontière dindi ko nak bu pare def li ñuy wax libre des gens et des biens lañ koy wax xawma ñu nuñ ko tuddee bi euh dañ leen di jox liberté nga xamné nit ñi mën nañ di dem marchandise yi tam mën nañ di toxal nga xamné fo foo bëgg a dem demal fa sa bopp foo bëgg a dem rek daal dem foofu loo fa bëgg a jaay jaay ko loo fa bëgg a jënd jënd ko kuñ ci songu yeneen réew yi yëpp daje jël seeni militaire dem xeexi dimbale ko ni ko woon Israël bana caaxaan yi mu nekk bu yàgg waaye dara nga ci mënut mënoo ci dara Israël mu ngi ci diggante ay julit diggante Iran la nekk ah, diggante eh, Liban la nekk اك Syrie اك Jordanie اك Palestine waaw mën nga ne ñeenti réew wala juróomi réew yëpp benn dëkk di leen toroxal nekk ci seen biir di leen toroxal ñàkk ànd bi rek la kon xeet woowu mooy xeet wi gën moo alquran ne na gën ji xeet la ko tudde xayru ummatin uxrijat linnaas kuntum xayra ummatin uxrijat nas waaye nag lay tax ngeen gën ñi ñi itam daf ko conditionné te amuruna bil maaruf da ngeen digle lu baax di tere lu bon su ngeen ko defee rek yéen féete kaw waaw loolu mu ngi bañ li xew xam nga toujours nga dégg ñu naan la andalus andalus andalus andalus waaw jullit ñi moom nañ ko juróomi téeméeri at ñoo moomoon Espagne Espagne li ak genn wàll ci France ñoo leen yilifoon lii lañ doon def ñoo nangam ñoo nangamoon waa lu ko fa jëlee da ngeen dem ba ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar moom ngeen bàyyi fële da ngeen a bàyyi lislaam bii leen fa joxoon doole ba ngeen falu ngeen dem créer seen yëfi bopp nekk di noos nekk ci yeneen ak itam maandootu leen te yàlla nag moom doole ji ku rek la koy jox yàlla xoolul chrétien xoolul juif xoolul musulman képp ku rek mu jox la doole nga yëlif sa morom parce que kooku moo gën ci nit ñi te ki gën ci nit ñi la fay teg motax yàlla nangou fofu toroxal len ñu jàpp len euh fani rek la fa jaar mang ngi koy xale ben xale bu ma bokkaloon ci avion man gis nga dëkk bi ni yëpp islam la won surtout nak fi ñuy wax andalus bi ay Granada ak ay Sevilla ak ay Cordoba Almeria dëkk yoyu man ko yooyu yëpp sen cathédrale yu nga fay gis mu rëy nonu man ko yëpp ay ki la won ay ay juma la won moom lañ changer daf ko ay cathédrale parce que jullit ña fa nekkoon mujj gi nekkatuñu ci luñ xam ci caaxaan lañ nekkoon di fo yàlla indi ñu ñeneen ñu ñu ñu toroxal leen ba buñ la jàppee sax dañ lay jox sàngara ne la naana soo bañee parce que dañ leen wax kuñ mujj gi mujj gi mujj gi jullit koo wax mooy la man duma duma jullit ba ba tubaab yi ñëwee ba jàpp leen bu ñu leen jàppee nag su ko defee dañ lay jox yàpp yàpp mbaam ne la lekkal soo bañee ñu rey la boo buñ la joxee sàngara boo bañee naan ñu rey la ndax noonu la ñuy xamee ndax julli nga war du julli waaw wala nga boog nga nekk naafeq lekk naan te dem sayo yoon waaw ndeysaan looloo fa mujjoon am kon xeet woowu xeet wu baax woowu nga xam ne yonent bi moromam yi ñu ngi koy ñaan ñu ngi ko ci ñu ngi ko ñu ngi ko koy ñeeyee xeet woowu mooy xeet yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy xeetam bi mu ne lam taxaf ragalut wala lam naxaf ragalun ñun baadaka gannaaw sa addalaala ak réer gannaaw boo fi jógee ñun ragaluñoo réer lu tax mu ne wa fii naa nekk na ci ñun waarisu nuuri hadika way donnu leeru njub sa ñu ne ko ñoo ñooy ñan mu ne al ulamaaw mooy borom xam-xam yi ñu ngi sa gannaaw moo tax ñun xam nañ ne du ñu réer ndax la nga yoroon ñeneen nga ko jox ñooñu jox ko ñeneen ñooñu jox ko ñeneen ba ci ñun di loo quraan yi yoone yooyu nga xam ne ñi wax ne ñoom alquraan yi kese kese kese ci la ñuy yem léegi lu tax ñu ne parce que liñ bind yëpp gannaaw yonent bi loolu moo sànk xeet bi wax dañoo war na yem ci alquraan waaye léegi boo yemee ci alquraan nooy def xamu nooy jullee créer sa julli bopp léegi yow li nga créé loolu moom nañ ko topp nañ sànni wax yi waroom xam-xam yëpp sànni xadis yi wax yonent bi sax nañ ko sànni nga ne amut mooy yonent waxutoon dara léegi nañ sànni yooyu yëpp bu boobaa nag topp la yow sa xalaat nga naan ñu yàlla nee na war kaaw julli bi mooy war kaaw rukkoo leen rukkoo leen mooy julli rukkoo lu mu jotee wasjudu ban julli ngay julli ak ñaata rakk nga koy def ku la koy wax boo génnee azaka ban nisaab ngay génnee ci la azaka di génnee nisaab lan ngay am soog a génnee azaka ak loo koy nañ ko wax booy aj aj ya euh, aj gi foo koy tàmbalee fu muy fu muy yem jeexee ak ñaata fan nga fay def loolu yëpp ak cànkute la goo xam ne gars yi dañ ci sawar nag di ko gën a di ko gën a xumb dugal ci réew mi réew mi léegi ñëpp loolu lañuy wax ko wax maa ne ñii kat dañuy wax mën naa déglu ay waxi dof lu ci déglu koo xam ne day sabote al alquran nit mën na ci sukkandiku ba def dara looy def bu la neexee nga lekk xaj waaw parce que alxuraan xaraamalu alxuraan xaraamal xaj li alxuraan xaraamal euh, euh, bëriwut yu bëri yonent bi moo ko xaraamal mbaam sëf yi bi xara alxuraan xaraamal ko yonent ko xaraamal lim xaraamal dafa bëri yonent bi lim xaraamal dafa bëri léegi yooyu yëpp yaa ngi ko nga ne kon léegi yooyu xaraamatut mooy da ngay saboté sabotage lañ nekk bëgg a eh, indi ñi ay problème yooyu yëpp mu ngi xawee Inde la cosaano foofu la juddoo boo leen waxee nag ñu ne man duma Qur'an yi tur woowu yow yaa ko créé man muslim laa rek waaw parce que wa samaakumul muslimiina la alquran wax bu ñu tuddee loolu ñun ay jullit lañ jullit boo xam ne yow wax yonent bi léegi da nga koo sànni fu leen maanaam yonent daal waxam amul njëriñ léegi li nga bëgg a sikkiloo nit ñi loolu boo ko toppee itam alxuraan ji sikk day am parce que boo ne léegi boo ne léegi sunna li tax buggoo koo jël parce que ay nit a ko créé ay lu nit ñi créé la gannaaw yont bi mais nit ñooñu ngay wax ne ñoo créé loolu ñoom ñoo sàmmat alxuraan ji ba mu yegg si fii ñoom ñooñu jox alxuraan lan moo ñu xamal ne lii kayit yi ñuy liir nii mooy alxuraan ndax aay yi ñu jàng nii saar yi ndax alxuraan la mooy alxuraan ja wàccoon ci yont bi wa saa lan xamal bu ma wax mukk ne inna naxnu euh, nu mu ko ci waxeeti nazal na zikra wa inna lahu la xaafizun bul layee loolu parce que alquran ji am na si ñu ko watt ñooñu ñoo ko watt ñooñu ci la ko yàlla wattoo yàlla moo koy wattu ci dënn ay gars yi dënn yooyu nag comme yow doyu la parce que dënn yooyu ñoo fi indi sunna doyuñ la kon tam bu la alquran doy scientifiquement mënoo ñëw fexe fexe ba convaincre ñu ne kon alxuraan ji dëgg la suñ demee ba weddi sunna loolu benn benn affaire la kon nee na bu fekkee réeruñ ba tey rek dafa am ay borom xam-xam yoo xam ne ñoo yore njub mi toog fi nee na ñoo ñooy ñi nga xam ne euh, ñooy ñi ñu dimbale moo tax mu ne fan qadat aayul ambiyaai wa ayatuka fi nnaasi ma lahunna inqidaaw fan qadat jeex na aayul ambiyaai kaawtee fi yonent ya waaye yow nag wa ayaatu ko say kawteef maalahu na déddi ñaa leen inqidaawun ak jeex financé ci nit ñi ñëpp jeexal nañ waaye yow doo jeexal sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy yonte yàlla muhammad mu ne wal karaamaatu karaama ya minhum tukkee ci góor yàlla yooyu mujizaatun ay mujiza la xaaza laq na ko min nawaalika tukkee ci say may al awliyaa wali yi mojisaat yi yonent yi daan def nee na léegi yàlla may na ko wali wali ñu ngi koy def wali ñu ngi koy def loolu mooy màgg ak xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak màgg ak mi ak euh, njubam mi dañ ko aar dara yàquwut ci sunnaam ak lépp yàlla aar na ko euh, ak alquran ji waxtu wu ne mi indi ay góor yàlla yoo xam ne ñoo koy taxaw di ko aar ñu foofu di ñaan yàlla nek suñu dimbal ci zahir ak baatin wat wat suñu dem yàlla wat lépp lu mu jox barkeel yëngu yëg dal yi may ñu ñu mottali li ñu door sa yenen ci at yu bari mottali ko ci barke yonent bi barke Cheikh Tidiane barke Baye suñu barke Baye suñu barke mom من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يقصف الورق ثم هبت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل نطفة تركب السفينة وقد الجمع نصرا وعلى غرق وردتنا على الخليل مكتتما تجول فيها ولست تحترق تنقل من سالب إلى رحم إذا مضى علم بدا تربخ حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف عليها تعتى النطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك لفق ونحن في ذاك الضياء وفي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 ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعوس مملكتك وإمام حضرتك وتراس ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود وسبب في كل موجود عين عيان خلقك متقدم من رضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وعن والدنا وعن أزواجنا وذرياتنا آمين يا رب العالمين لي سادة من عزهم أقدامهم فوق الجباه إن لم أكون منهم فلي بحبهم هز وجاء بجاههم وبعزهم طيب لنا عيش الحياة واختم لنا بالخير يا من لا لنا رب سوى تهنئة ربيعي بمرحتي شفيعي بمنطق البديع أغيب يا مؤملي يا ربنا صل على خير لنا ممن على على السماوات العلى بإذن ربه العليم أهلا بشهر المولد شهر العلا وسودد شهر النبي أحمد شهر الربيع الأول قد خص بي ربيعي إذ كان لا ربيعي للأرض وشفيعي بكل من وعضل أهلا بشهر الفرح شهر الذهاب الطرح وفخرنا والمرح شهر النبي الأفضل شهر الفلاح والسرور شهر به سادة الدهور موشح بين الشهور متوج مكلل أهلا بشار الفاتح إغلاق كون الفاتح من خص بالفواتح وحاز خاتم الملل أهلا بشار الخاتم شهر النبي قاسم وفاتح وخاتم وآخر وأول أهلا بشار ناصري للحق شار الامر بالعرف شار الظاهري بكل واص أكمل أهلا بشار الهادي لمنهجي رشادي وقائد وحادي إلى الطريق لمهله أهلا بشار سيدي لأحمر وأسود من هذا سبق سددي يوم اعتذار رسله وقد كفاها كلها أعبأها وكلها بقوله أنا لها عند الشداد الوجل فيا لها من خطة جوابه في الحطة من قوله سلطوطة من ربه سلطوطة ولدينا تقبلين أهلا بشار المصطفى صفوة كل مصطفى وخير عبد قد صفى من ملك أو مرسلين وشهر خير الخلق شهر جميل الخلق شعر عظيم الخلق في المحكم المنزل الشعر الذي آثره إلهه واختاره من حبه خيره انقضى انقضاء لجله الشهر الذي ما سأقط ومن له الحسنى فقط عليه جبل هباط بكل نور معتلي أهلا بليل اثني عشر فيه ويوم لغر وطيب ذلك السحار والنور يبقيه الجليل ألم بكل ما ظهر من خالق يرى الفكر في كرافي البصار إلى مقامه العلي وما رآت من عجاب أمنة حين نصب سبابة ثم اقتراب بسجدة المبتهلين كما تدل الزهر كما ترى القصر في وحل الكسر بظلم المجدل وغادت البحار وجفتي لنار من أجله والنار قد طفئت من خجلي وجنهم في نكدي لرميها برصدي وعزلها عن مقعدي من أجل خير رسلي ورنتي شيطاني جرى عظيم الشان من أوضح البرهان لعظم ما به ابتلي قد من ذو الإفضال بأفضل رجالي بأفضل ليالي بالبلد المفضل أهلا بيوم عيدي ما مثله من عيدي قد حل بالمولود فيه محل الزحل

رمزا لمعنى الاسم من جدي لينجلي بحمد الأولين اخرين فكان ذا يقينا من الكريم المفضل Thank you. أهلا بيوم اثنين مولد ثاني اثنين مبعث سر الكون مقدم المبجل أكرم بشار العجمي إبريل شار الكرم أكرم بأرض الحرم مولد خير مرسلي أكرم بيوم صار عشر واستنارا لمن حوى الفحارا وغفرة من منزل أكرم بشار إنسان مولد خير إنسان قدوة أعلى الإحسان والكامل المكمل قد تمت اللالي في عدة لالي بزينة المعالي كالجوهر المفصل أبغي بها الجمع به ومن ونيل قربه وفضل حب ربه ومن رضاه أمله والختم لي بالحسنى والجمع لي في الحسنى لدى المقار لسنا مع الرفيق الأفضل وكن لنا وليا وناصرا حفيا لا نختشي غويا بداية عبدك العلي صلى وسلم الإله عليه أفضل الصلاة ما دام كونه إله من أبد لأزل وآله وصحبه وزوجه وحزبه وكل آل حبه مع السلام الأكمل جائم يا إلى اغفر لناظمها واسمى لقارئها وللذي حضر وعمهم بخفي اللطف واكفيهم نائب الدار ما أفاته الكدر أجب دعاهم وعجل بالذي طلبوا بجاه أحمد ما أصابه الخير اللهم صل على محمد الفاتح لما ما سبقنا صراط بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق ومقداري العظيم اللهم صل على محمد الفاتح لما تم لما سبقنا صراط بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى عالي قدري المقدار العظيم اللهم صل على محمد الفاتح لما أولق الخاتم لما دينا صراطك المستقيم وعلى آله قدره لربك رب العزة عما يصفون